What up, guys? What up, guys? What's up, everybody? So I'm a guy. <laughs> before going further, allow me to introduce myself again. I go by the name of Malachon, and I'm from Senegal, West Africa. Rio City, the Kumam Kumbalamba Summer Town. <laughs> <laughs> Look at my PUBG, Ibrahim Ndaw, Mustafa Mane, Dagul from Belgium, Abakar Diallo from Russia, his elder Ismail Diallo, di may amul Dam Diagne, sama chéri Kumba Mane, tu vois, di may Moudou Fall ak Omar Fall borom Kébé Moudaay, di ko may gaay yëpp, di may sama coiffeur Pam Ndiaye, parce bi sa xel ba seddaay bi jéem sol woot. Sama gaay tey damay ñëw wax euh, Tange, wax ci Fou Ah, wax ci Californie activiste boobu noonu fi may njëkkee mooy Tange dama koy brosse rek dama ko seetantee ci mu ne fa toog naan waaw di wax mel ni benn gel yooyu quoi xeesal ba say tuñ ñuul am sa plaignant tu vois sàcc or fële ca moo géet ñu lay jiñ euh, acte de d'homosexualité ak Ouzin Keita waxoo ci nga waaw mais si gars il est tellement ah, damay taal rek di jàkkaarloog moom quoi mu naan waaw Ousmane Sonko ba keroog xam nga la ne si la simbi di fa jaajëf moom balaa xam ne dañuy def ay acte people mais yow people lu doo ko def. ah tey boo ñëwee lekk a Diallo boo bëggee gis Adja Diallo dem lekk Pape Cheikh Diallo tey li li ngay waxal gars yi ci yow yow Tange nga ba ñuul kuk fu ni boo toogee cinq jours sangoo diwoo yaa mën a yem da nga ñuul la man je je me rappelle sama papa bu daan ñëw day jàpp su ma jàppee télé bi ak ti people mën ma changel ki changel ki dafa góor jigéen la trop c'est policier mais xam naa il avait du flair yaa foofu la naan sarax dem si fu malade Fou Malade moom je me demande de qui il se fout quoi ba bu toogee jàkkaarloo Fou Malade lu ko neex lay wax Fou Malade mi ngi wax ci affaire maanaam euh, doomu doomu doomu doomu bu naître hors mariage quoi Fou Malade nee na l'enfant il n'est pas fautif affaire la yow Fou Malade li yàlla li yàlla a commandé quoi léegi yow li sa xalaat mu seetlu quoi yow mooy yoon yaa gën a yow a xam yàlla yoon quoi yow Fou Malade bàyyi sa bon yi ngay tuux da ak ay mag ah, naan ay day ay puub ah di wax ay wax yu vulgaire xamoo ndax yow da toog ay maam Adama Gueye ay mag de pour dire que le gars dafa réew xamul nu muy waxee da toog ay mag wul la noo ay day puub ay puub dafa neex di kii ñi sénégalais yi bàyyi la quoi loolu yëpp mën ko bàyyi mais tey nga ñëw léegi wax yàlla ngay jël yow di ko commenté fu ma doomu biiral du doon mais avant bul yegg am na loo xam boo ko defee doo yegg si doomu biiral parce que dafa pare yàlla dane la tax ra te lu mu la préparé boo si tegoo du la atténué la ñaata nit ngay gis tey jii ñuy ñu jël seen bien ah, ay yeneen doomu jàmbur doon na leen ñaata nit yeneen doomu jàmbur doon leen ñoo xam ne juruñu leen da gis ku mel ni man ñuul gàtt ñaaw doom jabaram kii ñu biiral benn gel gel na yaa ko biiral doom ji juddu xees pet ah njool def deux mètres ñu an maamam jëlee la doon maamam jooju dafa jooran xeesoon fekk ay kii la yàlla pour sécuriser loolu yëpp mu leen du doon parce que wóorul ñu bëri ñu ngi jigéen day siq ak ku ne tu vois jigéen ne kooku la te yalla da la préparé na la balaa tax bu bo boo jegewul lal ké loolu sa problème ay domour doomu do na nga no pourtant il n'est pas fautif c'est pas à toi duñu dire li yàgg religion bi religion la un point c'est tout mëno ci dara na nga dara sa péché de fumala fala nan sax ñëw ci Californie non su ma dee naqal ma rek xam nga maay jégalu parce que ni vraiment dañ lay metti loo quoi Californie Kali, Kali, Kali, Kali, vraiment, tu es devenu tout petit, quoi. Kali, moi, je te respectais parce que pour ton engagement, quoi. Mais après, quelque part, Kali, mais est-ce qu'il ne trichait pas? Yo, t'as eu à poster, faut que tu aies un Ousmane Sonko mais loolu loolu c'est pas normal ah dafa mel da nga dox si mbedd mi rek joteeg benn koo xam ne tey ji si benn tarixa la bokk wala benn diine la bokk rek ah nga commencé saaga seen seen seen sëriñ wala ngeen saaga seen seen seen seen yonent yi loolu du respect tu vois loolu du respect ñëw di saaga Ousmane Sonko kon yow mosoo respecté Ousmane Sonko te bala may dee nga naan waa Pastef dañoo siis rek dañu koy waa Pastef ñoo yiy siis parce que tey su fekkee yéen genre activiste yi nga xam dañuy ñëw di saaga ku yëpp Ousmane Sonko lu ñuy wax booyam dañuy rew dañuy saaga te seen genre gay seen genre gay tax mais tey ñu ne waa Pastef na du ñàkk seen image yéen tout le si diaspora bi lan ngeen réglé di mu boo Sonko waa Pastef bu ñuy segg jël les personnes ngeen ne dañoo segg régulation ah, mais yéen jarul leen Sonko nii yow moom yow yow Californie yow yaa yaa mu respecté Ousmane Sonko parce que man lu Ousmane Sonko mais yow tey jii Mohamed c'est vraiment Californie c'est gauche quoi sama gars yi doo leen ko sama kanam gu ñaaw gi génn instant fi ngeen dem fële sa Wakaam sama sponsor officiel club mobile numéro bi ma nga ne la 77 515 77 515 15 16 77 515 15 16 club mobile jim ku mu jaayul téléphone baaxul dala koy jaay pare day am suivi su paane moo koy réparé sama gars yi ngeen tàngaay bi de waaw mooy loolu quoi yal nañu yàlla mosul ci ay ay tange ay fou malade vraiment yii mooy loolu dans ce cas-là c' est du leen ko sama kanam gu ñaaw génne bëggee